man jiital naa seulement ak longu maas ak bii nii ma sol nii waaye temps daa sedd barki sëñ Bamba kay teg naa sangu mais mu wàccee wax dëgg fa yàlla du sangu bu nekkee dégg nga bëgg a dégg. ci jamonoy sedd la ñu nekk looloo waral doxalin yu bari dal di coppi muy ci wàllum col gi ak it ci jëfin yu bari ci askan wi. non réalité laa wax rek man moom instant yii moom gëj naa sangu bu ma wàccee moom aka ah, ma cee bëri morom barke yàlla seddaay bi waaw ah loolu mën ta ñàkk am na ñuy sekk nag du ma yeewoo nag suba gi sax moom bu gaz bi jeexee moom jaral na ma dem sarre ji ko mbaa ma boyal fourneau du ma génn kër gi te tàngalu ma ndox waaw ah, peut-être nag bu jamono doxee ba ñu am soxna balaa ñoo tëdd nañ sangu mais nii nii nii ah man maa wax dëgg yàlla gëj naa sax wuu yaa gën a sangu wàcc sangu <laughs> xaw ma kañ laa gëj a def barki sëñ Bamba du caax mu ngi tegale pull ak vest ngir fagu rekk ci seddaay bi Abdou di ab ndaw waaye farataal na lool sangoo ndox mu tàng. waaw man damay tàngal ndox tiim tàngal ndox laa bokk quoi <laughs> ndox bi day sedd ah ndox bi day sedd lool sama genre yi nga xam ne 5 heures du matin ngay xëy pour liggéey yooyu noonu heure boobu ça fait excessivement froid quoi. donc su fekkee ne da nga taal machine bi doxul pour tàngal ndox pour mën a sangu ci chasse bi bon donc da ngay da ngay tàngal ndox forcément quoi sinon moom c'est c'est pratiquement insupportable ko ci grand place bi ay paa yu dem retraite di faral di fa toog ngir waxtaan. ñoom it sedd bi doon na lu leen di gàllankoor lu ci bari. waaw xam nga bi ngeen ñëwee kër gaa ngi ne waaye yaa ngi fekk ci naaj bi pour pourquoi parce que kër gi boo fa toogee daf lay porte préjudice sur le plan sanitaire. moo tax ñuy préféré ñëw ci naaj bi toog fa waaw. amul mag amul ndaw sedd bi mel na ni ci ku nekk la méttee ba tax na jëfandikoo ndox mu tàng doon na lu ciy gën. même pour sangu ñun da ngay tàngal ndox parce que dañuy ne à partir de 40 ans booy sangu da nga war a tàngal ndox bi pour éviter ay AVC parce que xam boo fanaanee guddi gi yëpp dans lu chaud yow benn suba rek dugg ci ndox mu sedd mi tu as des yoo xam ne mën nga am AVC ak yooyu moo tax nécessairement dañu war a tàngal ndox mi wax dëgg yàlla loolu yëpp ay ay waxlu ci ay jeune ay paag yooyu ndox mu sedd médecin yi ñoo ko tere ko ko sangoo ban nga kaa sangoo cardiaque ci douche bi wàcc barke yàlla du caaxaan bañ ko sax bu may ndox mi may jàppee sax ndox mu tàng lay doon damay pare ndox mu tàng def ko ci satala bi dugal ci biir kii bi néeg bi ça je dis j'ai soigné j'ai enseigné je corps médical ma ne dëgg la ma la wax muy xale yu mag boo nelawee guddi ba yeewu le sang est coagulé pendant la nuit tu te réveilles tu mets de l'eau de l'eau chaude sang bi euh, xam nga lu coagulé boo ci defee lu tàng dafay dafay dañ day bàyyi mais boo boo jëlee lu lu coagulé nga jël ndox lu sedd tekki ah moo tu risques de tomber waaw sangu ndox mu sedd man pour man du ma ko def de muy tàngaay ak yëpp ñii nekk ci njaayum yëre yi nag mel na ni ñu ngi ciy dufal seen i gafa bu baax a baax. waaw période sedd bi moom ça va ça va très bien parce que affaire day dox quoi parce que moment sedd bi moom yaa ma gën a xam nit ñi dañuy soxla pili le plus souvent moom la ñuy gën a soxla ko yeneen habits légers yi quoi. ay waxaale bu njëkk mën na la laaj ay 3000 ay 4000 waaw man mi sans dépend ci qualité pili nga yor rek. alhamdulilah alhamdulilah ñu ngi sant yàlla daal sant yàlla. maanaam ñu ngi sant yàlla parce que instant bi lépp loo xëy génnee Colobane. waaw ah, bu la yàlla dimbalee balay ngoon gi daal di nga jaay lu bëri moom danga gis sa bopp di nga sant yàlla bu baax a baax. bu sedd bi yegsee ñuy faral di nemmeeku ci askan wi aw coppite benn ci solum yëre bu diis waaye itam sangoo ndox bu tàng doon na lu ñu farataal muy mag mbaa muy ndaw bu ñu sukkandikoo ci ndigalu docteur yi. ah man tàngal ndox pour sangu.